cofeel bi nga xam ne ëmbaloon ko jaam yëpp noonu la ko jaam yëpp ëmbalee cofeel ba boo ne Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh dong moomuñu ko da naan Sénégal dong moomuñu ko da nga naan Afrique dong moomuñu ko waaye boo demee ba Europe na ci euh, euh, bilaadul arab ci réewi arab yi mm-hmm. ñoom da ngay yaakaar ne sax ñoo gën a bëgg Cheikh El Hadj Abdou waaw ci ci ci ci ci cofeel ci cofeel waaw loolu mooy dëgg uh-huh. loolu mooy dëgg ndax euh, cofeel googu dañu mbay ci sa wewu tànk mbay wolof nee na boo bëggee mu rafet ci sa wewu tànk nga koy tàmbale woowu tànk woowu nga xamante ni bi moom lañ ci wax Cheikh El Hadj mooy la ko yàlla dénkoon la ko yàlla ràngoon ci ay jikko yu rafet ay bokkam la ko la ko njëkk a dundal ndax dañ ni bu nit buñ nee nit baax na dañ naan mbaa bokk yaa ko wax ndax boo ko deful boo ko defewul noonu sàmbalaar ngay tudd baaxe ay jaamu bàyyi say bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla li mu jàngale mooy wa aati dal qurba xaqa wal miskina wabna sabil waaw kon mbir mu nekk lu mu rafet rafet na tàmbalee fa mu war a tàmbalee ba mu tàmbalee ci bokk yi yemalewu ko fa da ko wéyal fa tabaarakallaahu ci kër baayam la ko tàmbalee wéyal ko ci mbooleem goxi Sénégal dëkk fu ne Cheikh Al Hadj Aziz radiallahu anhu ëmbal na la cofeel cofeel goo xamante ni yemul ci wax ko waaye sol naw dàllam xalifa bu ci mën a nekk ci kër goo man a bokk fekk na la fa nga nekk gën laa dëgëral ci sa kanam yi ay taalibe nangul la sag may confirmer ko ci kanamu taalibe ba kenn ku ci nekk kooku nag fa tabarakallah sama xaliqiina mooy lan mooy xeetu tab bu boo xamante ni bii yàlla baaxe woon na ko ko moom Aziz mooy tabe ci daraja nit mën naa maye lu nekk waaye xaw xaw xaw a nay ci lu ñuy wax daraja Cheikh El Hadj nag foofa la tàmbalee di tabe moo tax xeetu tab yi benn jaaxalu ko ci waaw bokk yàllaa koy ak mbokk yàlla koy wutal ku nekk yàlla lay wutal bokk waaye bokkoo say bokk nag jikko la ku ne yaa koy defal sa bopp sëñ Abdou bokkoo ay bokkam moo ko yóbbu ca loola xam nañu ni li ñu waxoon eh, li yonent bi sallallahu wax ni aljamaatu rahmatun wa firqatu adab sëñ Babacar si radiallahu anhu ko firi mu rafet ne aljamaatu mbooloo mu déggoo di yëkkatee du di yëkkatee doo tegandoo rahmatun lu ñu jéem man ko rahmatun lu ñu jéem man ko wal firqatu tàqalikoo mbooloo mu bale mu bari te yàlla nattoo leen tàqalikoo azabun duñ jéem lu sotti loolu la sëñ Babacar wax wa qulubuhum shatta tahsibuhum jamian wa qulubuhum shatta kooku mooy wal firqatu azab fa tabaarakallah sama xaaliqiina kon sëñ Abdou gëm loolu yëg ni lislaam bi ay kër a ngi fi yoo xamante ne bi kenn ku ci nekk moom ngay wuyoo waaye bu ñu àndul boole seen bopp ci génn buum noonu yii nga xamante ne bi ñoo leen dëgmal te yàlla jox leen doole duñu leen mënal dara mu boole boppam noonu la ko doon defee Touba mani ba mu jógee ci maam sëñ Moustapha Mbacke moomu loola tubaab ba xam ko ba ba loolu gis nga sëñ daf ko convoqué dafa convoqué Cheikh El Hadj Abdoul Aziz kenn daal waaw gouverneur bi convoqué Cheikh El Hadj ba mu convoqué Cheikh El Hadj Abdoul Aziz sëñ Babacar radiyallahu an ba ba mu ba mu jotee convocation bi daf ko woo boole ko ak maam Thierno Seydou Nourou Tall ni ko demal wuy ji ndar Cheikh El Hadj Abdoul Aziz dem wuy ji daan na ko nettali ba mu demee wuy ji ànd ak maam Thierno Seydou ba mu demee ci gàttal ma nga toog ak tubaab ba tubaab ba toogloowu ko sax nee na waaye maam Thierno Seydou la toog la waaye nee man ma xëcc sama siis toog jëful la ci mais ba ma toogee it nee na mu ni ko dégg naa dangaa demoon Touba mu ni waaw damaa demoon tuuba mu ni ko loo fa doon wuti mu ni ko noonu ndax monseigneur bee ca dakaar bu ñëwoon fekk monseigneur bii ci Ndar ñu dugg ci seen église waxtaan ba noppi est-ce que di leen laaj lu ñu doon waxtaan mu ni ko déedéet mu ni ko kon loo ma laaje bi kon loo ma laaje bii mu dellu di ko dafa mel ni kat defal na la ay teraanga jox na la sax xaalis mu ni ko lépp lu lu as gor di terale moroom gorom sëñ Moussa Mbacké defal na ma ko waaye teraanga jë ci gën a rëy nag mooy daf ma jox téere téere bi yàlla bi la ma jox alquranul karim te alquran jooje mu ma mu ma jox moo ma may ngay ngay ndawal France yilif ñu ñun ñëpp taabal ndox suñu diggante ma ak yow te loo wax lu dul dëgg ma dajji teg ci suuf kon nag fa tabarakallah sul xalqin loola moo gën a rëy ci man alal moo gën a rëy ci man leneen lu ma mën a loola moo may jur ab moo may audace bi mën a toog sa kanam di wax lii may wax muy wax yoo xamante ni bii mbooleem rapport yi ñu la fi indi wax ji dina ko dir ah tabarakallah kon loolu leer na eh, kon dañuy xuus rek ba tey ci biir waxtaan wi eh, man Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh fii mu toll tey nga xam ne ñu ngi tudd ay euh, ay feebar yoo xam ne mi ngi ci suñuy frontière ñëpp di tiit kenn ku nekk di di di daw ku fi nga xam fa jëm te yu mel nii du du guleet ci ci àdduna bi daan am waaye bu masaan am Cheikh El ci matam ak responsabilité bi nga xam ne moom la ko yàlla jox te mu nangu ko nag daf daan woote jël jël benn dimanche ba nga xam ne kenn du liggéey mu woote ca Zawiya Seydi El Hadji Malick bu dakaar bi dalal nit ñi bu leen dalalee ba pare eh, ànd ak ñoom def ñaan digal leen ay sarax ngir yàlla musal leen ci balaa boobu eh, eh, bu nawet bu masaana yéex comme ni nga xam noonu la demee ren baykat yëpp tiit mu woote def li ñuy wax baaw naan tey nag dem na lu mel nii bu amee kenn ku nekk da ngay fërëx kenn du xam foo jëm amul koo xam ne mooy dalal nit ñi ci jamono ji te loolu ba léegi bu amee rek ñu ne ay bu fi maam maam da baax nekkoon ci ci ci ci jëfi jamono toll léegi ak seen xelam lu leen mas a xori rek wokk ko moom xori lay nekk ci ñoom waaye moom day mel ni da leen dañ koo wokk ndax na mu koy yëgee ak na mu cay taxawee bu mujj nit ñi ittewoo ga muy ittewoo seeni mbir dina tax sax loola rek mooy njëkk a woyafal leen dal fa tabarakallahu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax man lam yahtamma bi umuuril muslimiina fa laysa minhum loolu yonent bee ko wax saay salaam lam yahtamma bi umuril muslimina fa laysa minhum nit ñi kat booy dund ak ñoom ni ci ñoom nga bokk te itteewoo seeni mbir yaa boole sa bopp ci ñoom waaye bokkoo ci waaw rawatina jullit ci nag kon nag Seydi Xaaj Abdul Aziz radiyallahu anhu yooyu ak ayat yooyu mooy li nga xamante ni moom la moom la doon dund nit ñi nag fa tabarakallah wala nabluwannakum bi cheyin min alxawfi wal joo wa naqsin min al amwaal wal anfusi wa thamaraati wa bashiri sabirin natt yi du fi jóg natt yi ñoo ñoom ma fi nekk ak yàlla natt yi duñ dol seen bopp duñ dal yàlla natt yi ci nit ñi la ñuy dal waaye na nit ñi xam ni li nga xamante ni bi yàlla waxoon na ko mooy lan nit ñi lañu xam ni lu xew ñooma fa bi ma kasabat ay diikum màgg ay diikum kon li nga xamante ni moo xew yéene comme yéene nag yi ñëw leen moo tax ca taw baak yëpp yàlla wax wa allaw istaqaamu ala tariqati la asqaynaahum maan gada maa an na li naftinahum fii walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxnaa alayhim barakatin min alsamaai wal ard walakin kadabu fa axadnaahum bima kaanu yaksibuun kooku alquranul karim la yooyu wane ne yàlla nee na li xew yéen li leen di nga li nga xam ni nag moo koy saafara mooy ngeen dellu si sëñ Abdou ca la ñu daan woo ni gars yi ñoo leen ñu dellu si bu dee bu taw ñàkkee mu ni ñu na ñu na yàlla nee na ñu na li ñu ko defee ñoo wàcc yoon wi nañ dellu si ci kaw yoon bi bu fekkee ni lu xew lii lii nga xamante ni moo am nattu yi wàcc moo xam tabarakallah gannaaw sécheresse bi nga wax te léegi mu amoon bërki démb fàttaliku fàttaliku ngeen ño ma nga woote ca ca mausolée Maam Thierno Seydou Nourou Tall foofu la woote baaw naan ba man maa ngi sant yàlla di ko wax toujours wax naa ko keroog rek ma ni maa ngi sant yàlla di ko di di ko di ko bégee ni ma yàlla ak ma terale bis booba xasida bi mu def ci baaw naan man mii la ko doon jànguloo alxaaji rawxaan mbay moo jiite keroog julli ga ba mu paree mu ni Thierno Mountaga ñaanal Thierno Mountaga ni ko bu ñu jaaxal sëñ bi ñaanal keroog li mu wax yàlla dañu ko yàlla bu fekkee ni li xew mën a jéggal ma te tawal sa jaam ñi bu fekkee ni li xew man a jéggal ma te tawal sa jaam ñi fa tabaarakallaahu kon jege woon jaam yi ci wàll googu lépp lu fi mas a xew affaire u Casamance ak ay affaire u yi nga xamante ni bi moo xew ci étudiants yeeg yi nga xamante ni moo xew ci syndicalistes yi dajeem yee jag saaw ak ñoom ak jage ñoom ak euh, ca Tiwaawat yooyu yëpp kenn ku ci nekk tey boo demee ci taarix ba ci événement naar yi fi jaaroon nga xamante ni bi taxawaay yu nekk boo ñëwee sax lettre yaa ngi fi te dafa dafa dundoon rasail maftuha muy ay ay des lettres ouvertes yoo xamante ni bii mu bind ko ñaari njiiti réew yi ci jooyu jamono muy Abdou Diouf ak Mouawiya Ibn Saad Ahmed Baya kenn ku ci nekk wax leen ni daal maa ngi yëg ni lii bu fekkoon ni jonjoo ni ñu dëkkee ñun ñaar jege yoo ko yéen ñaar yéen ñaari réew yi seen dem te demee woon na noonu kon mbir mi mën naa bañ a yegg si fii kon nag dee leen jonjoo te waxtaan ndax lii ay responsabilité la ay jaam ñi jaami yàlla lañ lii fi tuuru ci ay deret mënoon na fee ñàkk te lépp li ko indi mooy négligence su bañ a rab ñàkk a jokko kon nag jokkoo leen ñuy waxtaan loolu yëpp incha allah taala bu ñu ko defee yàlla dina ci def dina dina ci wis saafara kon daray réew mi comme ni nga ko waxee. masula nekk masula masula woyof ci moom dara yi nit ñi. masula woyof ci moom lu xew mu jóg. ba ci Casamance ba ci taalif bi mu mujj a def ci Casamance la ko def di ñaan jàll ci Casamance di jottali ko barkeb Chérif Younous mi nga xamante ni bi mooy la moo nekkoon ca Bangeer Chérif Younous moom nga xamante ni bi ci jëmm gisantewul ak Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu waaye mboolem ku mu jur rek yebal na la ci Maodo ku mu jur rek si Hadj Malick la yar fa tabarakallah mooy Chérif Bachir rek Chérif no tabarakallah yooyu eh, ah. njabootam boo koy comme comme comme ni lu masaan xew rek di tolof tolof boo xam ne wàcc na ci ñun da naan nañ ko jiñ suñu bopp kenn ñu na wax na ko ci benn woy wala fal kenn yaakaar na an allah lii mu ñu teg joxaat la laa la fa rabbul arshi loolu taxul ab yar la boo xam ne day tax ñu dellu ca moom tëb te baalu wala ci namm ci toroxal xam nga loolu mu fekkee waxu maam Sidi Hadj Malick rek radiyallahu anhu ba mu waxee mu ni zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaas li yudiqahum baad alladi amilu laallahum yarjiun yàlla loolu la wax moo laaj maa yeg nee ne laa yarjiuna bal yashkuun du ñu dellu si dañ fay nekk kay di jàmbat te loolu moo ñu topp ba tey bu mbir mi amee au lieu ñu jàngat ci liñ ci war a jàngat dellu ci fi ñu war a dellu dañ fay nekk di jàmbat